وسلم وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله كن خمنا كادو naa kàddu pour présenter leen rek peut-être am na ci mbokk yi ñu bëri ñu xam surtout ñi nga xamante ni dañuy dem Fass xam nañ ko xàmmee nañ ko waaye am na ñu ci bëri mën naa am yàlla deful ñu xam ko wala ñu xàmmee ko ki toog nii mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha Gaye doom la ci alxaaji Khalifa Gaye moom nag mooy taawam moom mooy magu ñoom Serigne Idrissa Gueye mi ngeen di gis ci télé bi ak oustaz Tafsir Abdourahman ak euh, Cheikh Abdoulahi Gueye ñoom ñëpp kii mooy seen mag mooy seen kilifa mooy seen sëriñ moo leen jàngal waaye nag macha allah yàlla tamit def na euh, depuis les années quatre-vingt moo ngi Maroc alxaaji Abdoul Aziz moo ko yar moo ko tarbiya waaw ci ñu daan jàng alxuraan ca jagsaaw ca du fajar jotee ca la bokk ñepp gis nañ gàmmu saw mooy yor kaddu yeb ndax mok seyd Ahmed ño bok jangando ci saw ño jangando ci fas bu Cheikh Ahmed Tijani donc mo ñew di ñu fekk euh, euh, allah tay euh, ñi wa fas yeb ñi ko xam contane nañ bu baax ndax toujours dama wax ni mom du ben euh sikar wala khalwa, wala nafila, wala sikar, wala cieur bu mënti ñak tamit nombre de personnes yi mu yobu fas rek mën na ko jox waaw ay junni junni fi mu ne nii jaar nañ ci loxoom ziyaari Cheikh na Ahmada Tijaani fi na ne nii at mu jot day organiser ay euh, euh, caravane yu mag yu jóge Sénégal di dem di ziyaari Cheikh ñu bëri moo leen découvrir loolu Cheikh na yàlla jox na ko cër bu rëy tamit foofu ca Faas yi fonk nañ ko jox nañ ko cër ba day dugg ba ci seen biir intimité te loolu euh, cëram la kon nag tabaarakallaa kooku moo ñu fekk si ñu ziar si ñu ci xadra bi ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla may fan Euh, wu gudd may ko teraanga may ko xéewal may ko sutura may ko euh, tabaarakallaahu li muy sàkku ci lislaam bi ak tarixa bi yàlla jox ko sëñ Moussa Ba fii tamit nga fekk si say mbokk rek nga euh, pulaar yi yal na yàlla bàyyi leen fi sunu jëwriñ ak nii di masul bi di sëñ Mouhamadul Moustapha Mbodj kooku sa tamit Haj Malick macha allah sunu maam la waaye tamit ku yàlla defal cër la te moom tamit dafay symbolu universalité ak universalisme bu Cheikh na Ahmada Tidiane moo ngi nii tubaab la fii la juddoo fii la yaroo waaye sunu wasifa yi moo ko tëj dama ne loolu honneur la maqaama la daraja la cër la ci tarixa Cheikh Ahmed Tidiane kon nag ñooñu rek nga fi fekk si ak say soppe euh, du yaatu woon dinañ présenté gars yi ba nga xam bu baax gars yi dinañ way ba mu xumb def ay affaire mais gis nga temps bi ni mu xatee la ak euh, temps bi ni mu wàccee la ñoom ñii ñëpp yàlla seede na ne heure bu moment bi jotee man dama leen yërëm ndax seen bureau yi ñu ci bëri xadara yi sax dañ koy tardé ndax ndax temps bu xat macha allah waaye nag euh, yaakaar naa doo leen xoolantee rek doon sëkk xombalaal nag kàddu yi nga bëgg a yëkkati yàlla na yàlla barkeel sa sa sa jotaay jërëjëf gay bismillah asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam ñu ngi leen di ziyaara ziyaara istimdaadiya di leen yeesalaat suñu njaal ci xalifa bi Maulana Cheikh Abdoul Aziz Sy Al Amin yàlla na ko yàlla yéegal ca barzaqi maamam ya yéegal ko ca barzaqu Abul Abbas Ahmad Tijaan Sharif بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وقال أيضا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين يا دفني damay bind fasna yene bind lo xamni day tasaro muni ni basharan ñu ni ci loo koy binde muni ni min salsaalin min hama'in masnun dana ko jël bind ko ci ban bu ñuul buy soppeku ca loolu la Cheikh Anta Diop basé wu ba wax l'intériorité de la race noire kon min salsaalin min xama in masnun moy ban bo xamni gis nga nda ni mu mel ban bu mel non la yàlla binde adam kon buñ ne adam couleur la nan hada adam yu lawn ki de couleur u aadam la yore moy sama couleur bi ma yore man ni la mam adam alayhi salaam meloon kon fierté la ñun ñu xam fan lañu joggé ñaarel ba moy yàlla dafa ni malaayika yi man de dama bëgg bind al fi fil ardi damaa bëgg bind un vicaire un représentant malaaka yi ni ko non non lu tax nga bëgg a def loolu a tajalu fiiha man yusidu fiiha wa yafsika dimaa wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak nan ngay bindee xalifa koo xam ni kii ngay wax de ni ñu ko gisee ñun dafi ñëw di fi def ak mbon di fi rayante di tuur deret te ñun ñu ngi lay sàbbaal guddeeg bëccëg du ñu def lenn lu dul li nga wax الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون lu tax kon yow ñun ñi nga xam ni ñun ñooy li lay duñu bàyyi say wax lu tax jëloo ñu def ñu xalifa nga bëgg ko def kii yàlla ne inni aalamu ma la taalamun xam naa lu ngeen xamul de man kon kon nag xam nga lu ñu xamul kon ñun maanu nañu malaaka yi daal di maan bopp noppi yàlla delsiwaat bind aadama ca couleur bële informé malaayika yi ni dina ko def pare wa is rabbukum lil malaa'ikati usjudu li adam sujootal leen adam fa sajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana min al kafirin te waxon nañu ni malaayika yi laa yaasuuna ma amaru malaaka lu ko yàlla wax lay def lu tax iblis ñu la abaa lu tax iblis bañ question kon iblis kana min al jinni fa fasakha <laughs> waaye maqaama yu mu am jaamu gu mu daan jaamu yàlla ba am ay maqaama yu kawee loolu moo ko may ba yàlla di informer malaaka ya xamal ni pare naa ca la ma doon bind damaa bëgg ngeen sujootal ko iblis fekk na ko mu toog abaa xaala yaay bis maa mën a àkka la mën a tëree sujud su ko waxone nek ah yow kat malaika yi nga waxal te man bokuma ci malaika yi kon day mucc waye ba ko yalla ne ya ibni su maa mën ak la mo te sujud xal ana khairun minhu oh. man mako gën ki nga bindu mako gën mul ko loko ko gën mun khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin xal fabit minha naar dal ko degradé waye ki ci nduk yalla ñom ñaar ñu xëccoo xëccoo xëccoo ba ciow lu feñi fete bor yàlla ni ko léegi comme que lànk na ma lay dégradé mu ne ko du demee noonu ndax xoolal ni ma la jaamu yow borom bi subhanahu wa taala amul fu suuf nekk te su jootulu ma la fa ay junniy junni ak ma lay jaam nan ngay xëy xëy dégradé ma ci ndax xale bi kon nag may fay loo may lu ma lay fay mun ko andini ilaa yawmi yub'asun li may fay mooy bàyyi ma ba yowal xiyaam xaala ko fa innaka minal munzarin kon bàyyi na la mun ko nag fa bi maa axwaytanii la aqudanna lahum صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم وعن أيمان وعن جميع أيمانهم وعن شمائلهم danaa leen ñëwee kanam ñëwee leen ginnaaw ñëwee leen ndeyjoor ñëwee leen càmmoñ yàlla ni ko loo leen dikkee yaag ñooñ bu ngeen ñëwee ma boole leen duma loolu mooy diina loolu mooy cosaan foofu la l'islam commencé muy soumission totale en Dieu sans condition toute la créature finalement est musulmane muy asamaan di suuf di garab di jant di lépp loo gis rek jullit la muslim la ndax wa ma min cheyin illa li yusabbixu bi hamdi rabbihi walakin la tafqahuna tasbixu yàlla ne amul lenn lenn lu ñu fi nekk lu mi ngi may sàbbaal xëy na kañ dina ko déggul wala tairun yatiru bi jinaxaahi ila umamun amsalukum wa ma min dabbatin fi lardi ila ala allahi risquha lépp rek mi ngi nekk ci soumission en total en Dieu l'islam jàll na liimaan daal di ñëw lan mooy liimaan an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil axir gëm nga yàlla gëm malaayka yi gëm ses prophètes wa rusulihi en pluriel min aadama en passant par noox ñëw ci ibrahima dem ci yonent yàlla moussa dem ci aïssa génn ci seyduna muhammad wa kutubihi en pluriel encore ses livres la tawra l'évangile les psaumes de David et le Coran Coran al Quran la lu courant al Furqan li nga xam ne ak fen wala yowmal aaxir gëm ni loolu fondement bi nga xam ni fondement gëm nga yàlla ak malaay gëm malaay gëm yonent yi gëm téere yi gëm bésu al mu'min moo ba ne gëm nañu. xaalu amana doo ko gul aslam naa walakin lan tu'minu loola ba mu amee nag ñu daal di départ jóge nañ ci iman jóge nañ ci l'islam muy créature bi yëpp jóge ci iman li nga xam ne ñun ñoo ko bokk muy la foi abrahamique huwa alladi samaakum muslimin inni wajjahtu wajhiya lilladi fatara samawati wal arda hanifan musliman وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سي أبراهام mooy premier muslim kon diine diine lislaam ñëw na fi lu jiitu Seydina Muhammad waaye bu dikkee si rek daal dugg li nga xam ne mooy lixsaan mooy lan ñaari phrase da ko yonent bi te tëgg an taabud allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yarak beneen dimension bi nga xam ne ma ñëw mooy léegi nga jaamu yàlla taxawal yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom ñun la ana yàlla nga ne ma nga nee soon mbaxana mu ñuul xàmmee ko lool bañ koo jaawale kenn waaye man aw ma samay bët dafa mieux ba mënumaa xàmmee mbaxanaa ma waaye wóor na ma ni moom mi ngi jàkkaarloog man kon comment préparer la personne dans son intérieur kon ana xaatimu nabi yi na mu seydinaa Muhammad وخاتم الأولياء لشيخنا شيخنا التجاني لا نقول خاتم النبيين وإمام المرسلين كل الختمية المحمدية النبوة فوف سو لي بروفيت لا مي ما إمام المرسل ميساج دي أم كونتينيتي كان ما يأسير كونتينيتي كوك ما شيخنا التجاني لو كان الإمام المرسلين كل يوني استمرارية الرسالة المحمدية nan la continuité wu hadihi risalatu muhammadiya mën a continuer loolu la Cheikhu na Tijaani ni moom moo koy assuré ñu ni ko foo ko teg mu ni yonent bi laa wax ma tontu ko lu mu wax mu ni kuntu nabiyan wa aarifan bi nubuwati wa kaana aadamu bayna al maa'i wa tiini man bamay nek yonentou man sayyidina Muhammad di xam ni man yonentou la boobu aadama ak ndox mek ban bi ñu koy defar aadama moom la yàlla xuloo woon ak yonent ya ca projet ba ak malaaka ya cheikh tontu ko ni ko kuntu waliyan wa arifan bi wilayati wa kana adamu bainal ma'i wa tiin wujudi alladi abna rabbi wa aadamu bayna almaa'i wa tiin tafsir bu ñëwee dina leen gàmbul Abdourahmane Mbour Idrissa Diané daal di leen gàmmul waaye ñun nañ doon génne li nga xam ne moo nekkoon ca commencement bi ak li ci fin bi commencement bi mooy ba yàlla bindee Adama lu jiitu loolu fin ba mooy bu Cheikhu ne Tidiane ñëwee fas yéene assurer la continuité du message prophétique muy istimrariyatu ar risalatul muhammadiya loolu moo ñu yëkkati lu tax tariqa cheikh mën a garanti loolu parce que soufisme la le soufisme c'est quoi c'est exactement comment préparer la personne dans son intérieur ak ihsaan préparé ko moom ba bu génnee yooyu Cheikh nee na boo ko xoolee kanam nga boo ko xoolee ñu ngi ko bind laa ilaha illallah mu wan la ginnaaw ñu bind ci muhammadu rasulullah nga xool lenk te bopp ba ba ñu koy aada ak tijaan nitul muhammad yi kon ku bokk ci Cheikh rek boo génne lay yomba xàmmee ndax mandarga yi lumière yi moo lay tax mooy mooy mooy mooy tax di feeñ wa nuurika laami alladi malakta bihi kawnaka alxaayita bi am kina bi makaati كل ما خم خم يو يب بغل أنت جل فوق أنت ملا بمركز الفهومي والمعاني سنتخال بو بغا خمني فوق لا خم خم يعني كوكو بغا خم دعني دوكو تبير شو كنت تجاني وإن الدخول أخيا في طريقتنا ليس بمشيئة الله لا بكد جسماني لين دفن لين دفن أي أفور بباكو تاريخي دادت ما مسير حاج مالك نعي tarixa bi maa ngi lay xamal ni ku ci bokk ku ne bi masiatillahi la yàllaa la xool ni man de mortaala mais neex na ma damaa bëgg mu dugg ci tarixa bi jibril daal di koy dégg yàkkamti dama wax ko sidina muhammad ni ko dégg naa yàlla mu ni mortaal da koo neex du ko bëggoon a dugal ci affaire bi jibril ba mu ko dégg wax ko sidina muhammad sidina muhammad daal di koy profité mamit balaa kenn dugg ci diggante bi wax ko Cheikhuna Tidiane ni ko mortala mel ni jëlee leen ci aras mu jóge ca borom bi jaar ci Jibril ñëw ci Seydina Mouhamad ñëw ci man ni bokk na ci tariqa bi ñu xëy xëy mu ñun damay jël ci salaatul fatiha mu def dafa def effort deful effort bi ma siy atillahi la yàlla na yàlla def ni kàlla yàlla yàlla boole ci biir dëkk tariqa bi dund ci tariqa bi dee ci tariqa bi nekk ci tariqa bi lii mooy li nga xam ne nag moo sabab ñun ñuy organiser li nga xam ne mooy ziyaara زيارة بابا نك موي توريزم بي ني ديف فخه نان لا ني فخه با خام شيخو نك تيجاني خام اي خلفاء دو كومونسي ربا دم مراكش وات كيا خام ني موي ابو العياس قال سكيريس امام السكيريس نيو نيو نيو لي ني ليغيال لول مون في اندي حاج مصطفى كي ياغي ني نغا جوكو طالبي ني خول ابري ني جوكو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله بودي دا ني خارغي دا ني في بنين سال باسكو ني ah kon nag kon nag mbir maa ngi noonu parce que.